صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ibn abdillah wa xeyr xalqillah wa ala alihi wa sahbi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp mbokki taalibe yi fépp fu ñu mën di nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu di leen ziyaara di wax ne xew-xew bu mag lañ amati fan muy ca Kaffrine muy bés xadara jumaa boo xam ne ñu ngi ko jagleel Kaffrine ansaar diin bi nga xam ne moom la président Mounhamina jiite jox ñu ndigal pour ñu wër ci mboolem région Sénégal yi ak mboolem département yi pour ñu taxawal fa xadara juma bu mag boo xam ne mboolem kàngami tariqa bi ñoo fay bokk dajee daf ci benn malaan toog ci benn malaan xadara toog ci man benn malaan wasifa ci njiital nag Cheikh Abdou Barham ak ay ñoñom ak ay taalibeem ak seex muy kan Cheikh Oustaz Damka ak kan ak Cheikh Alaaji Saalum Ndaw ak kan Cheikh Ibrahima Ba ak Khalifa Cheikh Mawlana Cheikh Lislam Xaaji Ibrahima Sëñ Ngodi Ba ak kan sëñ Moustapha Top ak kan sëñ Gàmmu Wilaan ak kan sëñ Taala Wilaan ak kan sëñ Maam Gor Dia Damet mboolem muqaddam yi sëñ Mawlana Cheikh Lislam Xaaji Ibrahima si nekk biir Lukmaan ñu ngi leen fas yéene oo ci xadara juma boobu nga xam ne Ansaar Diin moo ko woote ci njiital président Euh, Cheikh Hadi Ba nga xam ne moom lañ jiital foofu ak ñi muy jàppalante ñoom ñu fas yéene foo organiser le 27 euh, bii nii ñu ne ñu àjjuma bii di ñëw euh, le 27 décembre bii ca Kaffrine ñu ngi ciy oo mboolem jullit ji mboolem taalibe yi waaye ñu ngi ciy rawatina ñu ngi ciy autorité yi kan monsieur le maire sama xel sama soppe Ablaye Wilane ak kan Ablaye Sow gouverneur préfet police gendarmerie ñëpp ñu ngi leen ci oo ñu ci mbokk taalibe yëpp incha allah euh, président Mouhamed naa dina ànd ak ñun ak délégation bu yaatu ci biir Medina ñu fas yéene dem taxawee jotaay boobu ñu ngi ci oo jaat taalibe yëpp ñu ñaan yàlla bés bi yàlla na ko fekkee jàmm lépp luñ ci ñaan yàlla nagul ñu ko te jubluwuñ ci lenn lu dul leeral lan moo tax a jub ansaaru diin ak lan la ci bàyyi bëggoon ak lan la ci bàyyi namoon pour xëcc ci taalibe yi pour ñu gën a ñëw adhéré ci Ansaar Dine loolu moo nekkoon woote bi ñu ngi ci woo ñëpp ñu ngi ciy ziyaar ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad di leen ndokkeel di leen wax na leen uh, suñ xol namm na leen ñu yàkkamti nañ tamit pour jokkoo ak ñoom te yàlla rek tax ci kaw liggéeyu cadre cadre Ansaar Dine bi ñu dénk bi ñu ko jëlee léegi dañoo gis ne bokk na ci priorité yi li nga xam ne moo jiitu ci kuñ jox liggéey mooy mboolem ñi nga war a seqal liggéey bi nga dem jox leen loxo wax ak ñoom wax leen sa programme déglu leen euh, loolu tamit euh, ci dox diine la bokk mooy nemmeeku mbokk gi euh, seet leen fu ñu mënti nekk seet wax ak ñoom xam lan ci lan lañ nekk ñoom it ñu xam ci lan nga nekk comme ni ñu ko waxee nag tournée nationale la boo xam ne nii dañ ko programmé pour président Ansaroudine fépp fu taalibe Baay nekk ci àddina bi rawatina ku am mbooloo mu ñëw ba ci yow wax ak yow dégg nga nemmeeku la fàttali la ansaaru diin fàttali la mbiram Baay la te itamit taalibe yëpp buñ ci àndee jàpp ko taalibe yi danañ noppalu sëriñ si noppalu ba pare diine ji dana am ndam dana am sakk ñuy oo nag mboolem comme fi bi yoon Kaffrine lañ jëm ñu ngi ñaan mboolem ku nekk Kaffrine di taalibe bàyyi rawatina ku yore mbooloo mu xaddam wala nga yore association wala loo mënti yore wala sax yore woo dara yow kenn la ñu ngi lay ñaan ngir yàlla gënant bi nga ñëw ci xadratul jumaa boobu nga xam ne Cheikh Baye Aadi moom lañ ko sant mu piloté ko moom moo koy dox ñu defoon ko fële ca Passy euh, yàlla def ci ndam ñu gis ne kon formule boobu baax na ñu jaar foofu gannaaw buñ sikkaree ba xol yi tooy dégg nga ñu dellu ci yàlla ñu wax ak nit ñi nag ci programme bi nga xam ne mooy programme waaye kon daal euh, ñu ngi ñaan mboolem muqaddam yi mboolem taalibe yi bu ñëw tudd kenn bàyyi ki ci des mu mu mu daal di niru euh, leneen waaye daal képp ku dëkk ci zone boobu wala sax ku fa dëkkul waaye rawatina ñu dëkk ci zone boobu ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ci sikkar ajjuma boobu ñu bokk ko sikkar ajjuma waxtaan ci ansaaru diin génn ci ak ngërëmal bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala عليك صلاة الله ثم السلام فطرى